salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa daairal muqaddimatul xidma euh, ñu ngi leen nuyu baax di am mbégte ci seet si gi ngeen seet si liggéey bi nga xam ne euh, di banqaas boo xam ne dafa aju ci euh, comité d'organisation màggal Touba ci njiital sëriñ Bachiru Abdou Khadir Mbacke di mbooloo moo xam ne dañ fay nekk di jagal màggal gi ci wàllu ak ak yi hébergement ci màcc màcc ci côté bi nga xam ne ci lañ féete ni fii ci Daaru Manaan euh, muy amal liggéey yoo xam ne day dalal bépp gan boo xam ne jóge na ci fu mu mën di jógee ci àdduna bi su dikkee fii danañ ko dalal danañ ko teral ci ndigalal xalifa général ñi ngi ci gën a taamu nag ci dalal googu euh, gan ot euh, ñi nga xam ne kilifay diine lañ te nekk nekk ci Sénégal ñu ci bëri fii la ñuy dal ci délégation bi yàlla dogal ñu daj ànd ci comité d'organisation màggal Touba euh, ci njiital sëriñ Bassirou Abdou Khadir Mbacké ñu dagg ci benn pàcc ci daayira Muxaddamatul Xidma féetale leen ci wàllu ak hébergement lañ lañuy la ñuy amal fii euh, ñu ànd ci ak wilaaya yi ci wàllu réception ak euh, bernde yi ak li xeeti liggéey yeneen yi nga xam ne day ànd ak liggéey bi ñu def kon mën nañ ne fii liggéey bi kenn mënta dem bàyyi sa moroom muy wilaaya ak Muxaddamatul Xidma ñoo nekk fii ko di def liggéey bi ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee euh, bañ tàmbalee depuis quinze safar ba léegi ñu ngi délégation yi ñu ngi ñëw bu baax a baax euh, suñ dikkee danañ leen dalal ci salle bi nga xam ne moo nekk ci bunt bi euh, dalal leen ci façon dalil bi nga xam ne ci lañ dalalee kilifa surtout kilifa goo xam ne kilifa diine la ñu dalal leen ginnaaw bu ñu leen dalalee it ñu euh, vérifier seen euh, euh, statut ci kër gi ba xam ndax ñoom ci gan ñi lañ waa wala déet su fekkee ci gan ñi lañ ñu kii leen ñu dalal leen jox leen seen chambre su ko defee laja des suñ mbokk yi ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey muy waa wilaaya ñu continuer liggéey bi waaye nekk na liggéey boo xam ne daal moom liggéey bu mbégte la liggéeyu sant la ndax Sëriñ Tuubaa moom ku mi liggéeyal sant ak ngërëm rek ngay def te it yàlla dogalit Muxaddamatul ma di euh, mbooloo moo xam ne sëriñ bi wóolu na leen ci bépp nekk fii ci réew mi ak ci fu mu mën na soxla ci xeetu liggéey yu demee nii dana leen ko dénk kon euh, dénk gi mu leen dénk ci wàllu liggéey demee nii moom yaakaar naa euh, sëñ bi doyloo gum leen doyloo la waxtu wu ne mu di ko feeñal moo tax waxtu wu leen ko dénkee rek danañ ko def defin woo xam ne wu kawe njort la ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ sëriñ bi di liggéey Eh, fii daal ñëw nga fi seet fekk fi seen naataango eh, ñu bokk ci daayira bi waaye nag ci beneen fànn muy ci comité d'organisation bi ci côté accueil hébergement fekk nga fi it ñoo xam ne wax dëgg ñu am xam-xam ci liggéey bi te yàgg koo def amuñu ci benn jafe-jafe daal wax dëgg liggéey bi mi ngi eh, déroulé ni mu war a déroulé gan ñi mën nañoo wax ne quatre-vingt-dix pour cent ci gan ñi mën nañ ne ñëw nañ te dal nañ kenn nekku ci benn jafe-jafe wax dëgg liggéey bi maîtriser nañ ko maîtriser boo xam ne daal mën naa ne lépp daal jaar na ci yoon waaw loolu moom maîtrise gi tax na xam-xam bi nga xam ne yàlla dogal na mbooloo mi am nañ ko ci wàllu googu euh, tax na ba jafe-jafe yi daal xam naa xam-xam bi leen yàlla dénk ci wàllu dalal gan tax na ba euh, amuñu ci benn jafe-jafe liñ mën a xam leen mooy jamono jii ngay wax ak ñun à quatre-vingt-dix pour cent gan ñi ñëw nañ te ñu ngi ci bërëb yi ñu war nekk waaw kon ñu ngi leen sant bu baax ci dëkk geen fi dëkk di ñaan yàlla tawfeexi màggal gi ak euh, li ci barke ak ñu am ci ngërëmul ci Tuubaa yàlla tasaare ko ci bépp jullit bépp murit ñaan ñëpp jàmm ak xewam